astaghfirullah azim laay njëkk a wax euh, di tuuba dégg gi euh, di waxit ne loolu moom ay source la comme ni ko waxee rek ñii fi amee léegi di wax ne ay source nekkul lu am mu que xibaar moom dara day am sax nga jottali ko askan wi jot ko waaye wax loo xamante ni moom euh, da nga ko da nga ko créé sa bopp rek dégg wax ko génn ko ci journal soo seetee journal bi ko jë bi ko bi ko bind démb muy quotidien dégg nga avant dix heures ci suba dégg nga amatut journal bi amatut waaw nii Diourbel Mbacke Touba du Kaolack gii waaw biñ ci am biñ ci am biñ ci am Dakar lañ ko amee waaw euh, pour xam ne kon une euh, fausse euh, information la waaw benn sëñ bi génnul bokki démb waa Burkina Faso ñëwuñu fa bi sëñ si di ma tànnal léegi ñoom ñëwaguñu sax dégg nga jàll sëriñ bi ñëw gu ñu yeesal yeesal seen njëbal ci sëriñ bi encore euh, valeur bu cent trente millions nag mu taalibe bu ci nekk rek yéene nga sab sëriñ un milliard bon soo soo sañoon jox ko waaw mais ko xam Burkina ak loolu dafa nekk fa xam nga taal taal bi moo gën a cent trente millions dégg nga nekkuñu fa biñ mujjee siyaar sëñ Sidi Mokhtar euh, yaakaar naa huit millions lañ fa andi huit millions lañ fa andi waaw pour xamal ne kon dégg nga loolu fausse information ba waa Burkina ñëwuñu fa sëñ bi gën a bëkki démb dégg nga kenn ñëw fa di nga jox ko cent trente millions te su ma mun naa àgg sax ci ne bi mu toogee xilaafa xalifa général bi ak léegi dégg nga kenn ko joxagum euh, cent quarante millions waa Darou Salaam la bi ñu ñëw di jébalu te ñooñu bi ñu ñëw di jébalu ñu dégg dañ ko bañ ba boole ci benn almet teg ko ci kaw dégg na ko ta euh, euh, soo neexee nga taal waaw kon yaakaar naa loolu loolu daal mooy lu weer moom mi ko def na xam ne nag maam tooñ na yàlla ngir wax na lu amut te moom dégg nga doy na sëkk dégg ak tooñ yàlla wax na lu amut wax na ko ci ay gor yoo xamante nii dégg kenn soxlawu ci àlalu kenn comme ko wax jëme it kooku it dégg nga maanaam soxlul kenn kenn mosu dégg sëñ Muntaxa di bind lettre sas kenn mosu ko am lettre bi kenn mosu ko mosu koo gis dégg nga kenn dégg nga li ko waaye jox te yàlla ak yéen jëm sëriñ Tuubaa bi ñu bokk a tax waaye à part loolu dégg nga soxlul kenn ci lenn kenn mosu koo dégg mu laaj addiye ci rajo bi kenn mosu koo dégg moom muy sase saa yoo ko defee dégg ndigal ko def loolu ci xel ci la dem waaye te tey yaakaar diiru bi mu fi nekkee toog toog fi xalaat suñu Tuubaa dégg kenn du ko ci mos a dégg ñam yar nag ci lan ci lan li yar rek da nga ci ci la ñuy dund benn ci man mii ak samay morom waaw parce que su tey su ne da nga ña jege xale bi jël nañ cent trente millions ci laa kenn kenn ci la loolu moo tax ko gisee waaw parce jege moom ma jur moom yar dégg nga maa ngi maa ngi doom sama sama bàyyi bokk benn bàyyi dégg nga ba ma fay dem xale bu tuut laa bu toll nii ma toll dégg nga xaw ma kenn ku du kon su fekkente ni du ma fay jóg suñu nekkoon jëlee cent trente millions kenn setu ci kenn kenn setu ci loolu na kon nekk na loo xam ne tooñ na da nga te ab jullit nag bu tooñ dafa war a taxaw jégalu li mu li mu waroon tey jii bind ci bindaat ci journalam ba ne da nga na askanu euh, nga tooñ naa jullit yi tooñ naa waa Kër Sëñ Tuubaa naa waa Kër Sëñ Tuubaa indi jégalu yàlla léegi maam yaakaar naa loolu loolu moo ko waral su dee ko ragal yàlla la waaw te ab juriste nag dégg nga sa demee ba def journaliste dégg nga war ngaa def dégg nga maam lu lu dëgg loo xamante ni te mel na mel na nag njëkkee wu ko ci sëriñ bi parce toujours dégg nga dégg fi problème yu bu yàgg moo sakante la woon nga déontologie am na na am <laughs> waaw te ne nga wax nga seen ay doom ay ay ay nga jiñ leen dégg lu euh, a ak tooñ yàlla waaw na xam ne tooñ na nit ñi yàlla dégg lu métti lu métti la waaw lu métti la ci kaw yàlla parce que dégg comme dañoo nekk la ñu moom na delluwaat ci sëriñ may wax murit bu am fula ma warutoo jënd quotidien parce amara ji bu jàpp sa nga wax ko dama dama damay safé ba ba nga jaar ci quotidien ba amara ko di déglu waaw loolu loolu ci sama wax waaw loolu moom li ma ci daa wax naka jekk liñ ci dox sax ci ay jéego duñ ko wax parce que dégg nga borom mu njaboot lañ yàlla yàlla yàlla lañ koy seereel li wax mooy que nekkul lu baax parce que suñu suñu rek da nga xool ñoo ci ñoo ci perte kon état na wàññeekuwaat waaw na wàññeekuwaat dégg nga wax ak dégg nga enseignant yi da nga négocier ak ñoom ba ñu ba ñu doole waaw comme ñoom it da nga maam mënuñoo te suñu defee année blanche da nga pertement doon ci réew mi yëpp pertement lay doon baax a baax waaw la ñu jàppale nag waxtaan ñoom fexe ba négocier ñoom ba mën a sauver année bi waaw parce soo ko seetee en 2012 amoon na fi yu mel nii la doon dëggante ñoom bopp rek dégg gis ngay dégg nga la mu ko jural tey moom mi ngi jëmoon ay élection li ma koy digal te digal dégg nga maa ministre Mbaye Thiam ak manqué ñoom ñi maa digal te di leen ñaan dégg nga nañu wàcc seen bopp dégg nga waxtaan encore dégg ak enseignants yi dégg nga waxtaan syndicat mboolem syndicat yi fi nekk yëpp dégg nga xool bu jiba am suñu njaboot dégg nga dem jàngi dégg a sauver seen année mën a sauver année na sauver année dégg nga lam yoral ñee ci xaalis dégg nga na négocier ak ñoom jox leen ko tey nga fay tey maam ku ku ñu yàlla su neex waaye tey ma fay la par force dégg soo ko moom mën ko def kon li ñu am mooy nañ ak ñoom ndaxte waa dong la waaw parce que nag nit ki nag doo fekk ci ci ci àllam dégg nga bu ko ci ci jaay jaayante moom dëgër bopp loolu moom rafetlu ma ko li may ñaan daal mooy na état wàcc dégg nga waxtaan ak syndicat yi ndaxanteeg ñoom dégg nga fexe subi année bi année bi nga ni kat 2012 amoon na fi dégg nga bi état bi door toog dégg nga am na nu mu ndaxante woon ba ñu subi année boobu waaw kon dañ defaat doon dégg nga euh, euh, subi année bi waaw suñu doon suñu njaboot ñoo ñoo ci perte loolu la amoon lu ma ci wax di sant ñëpp di